yallahu bil mustafa sindidi yallahu wa bi khalili ibrahima yallahu ak Touba Mbella TV ak Touba TV ngir ngeen mëna jot video ay vidéo en réel na ngeen di abonné tay seen vidéo bi Touba TV di and ak Kër Bamba Déco Kër Bamba Imo ASS mbokk yi soldaru Serigne Touba bi taxawu Sénégal yi rek moko taxajuk motax mu andil leen Kër Bamba Déco di dox ci lepp lu jëm ci CL nga soxla tante muy bâche wala nga soxla 16 ay décor yu taru te am solo ay tapis rouge yu taru lol mbokk mbokk yi kër Bamba Imo di dox ci lépp lu jëm ci suuf fii ci Sénégal moo xam nga bëgg kër wala terre wala nga bëgg appartement jokkool ak kër Bamba Imo ASS di dox ci lépp lu jëm ci gardenage fii ci Sénégal nga am entreprise wala agent bëgg ko la ko gardeel jokkool ak ASS soldaaru Serigne bii taxawu senegal yi rek moko tax a jóg mbokk yi jokkoo leen ak mom ci numéro bi ngeen di jakarol ci image bi 77 339 88 55 77 339 88 55 ak touba mbele tv أعوذ بالله بسم الله ñaar fukk ak ñent mu tollo di wax di murum koor murum koor farata bu wér ku ko weddi am yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te teliwu ko ab saay saay bon a bon te bëgg ko tuublu ba dee sawar la jëm ana ku muy war nag xanaa as gor di ab jullit te mën koo am donte da koy leb sax bu yaakaari ak pay mu di ko war nag ci boppam ak koo xam ne moo ko war a dundal niki soxnaam ak doomam ju góor ba ba muy mat góor ak doomam ju jigéen ba ba muy mat am borom kër ak cay way juróom bu ñu ko amul ak ci ab jaamam ana ci lu mu koy war a génne nag xanaa ci li ëpp ci dundub réew ma mu dëkk ñun waa réew mii nag ñun waa réew mii dana ko génne ci ab dugg ci dugub ci dugub bi suuna walla saaño walla basi walla teñ wala feela walla ceeb ku ko amul jënd ko joxe ko kuy kuy dundal lu dul yii nag kuy dundal lu dul yii tamit mën na koo génne ca la muy dund rek ana mu war a toll nag xanaa bopp bu ne ñaari kilo ak genn wàll ci suuna ak yu ne demee bu dee ceeb nag walla mooy lu dul yii kon day wut nattukaay goo xam ne ñaari kilo ak genn wàll moo koy fees ci suuna mu nata ko ca bañ koo peese ana waxtu wu mu koy war a génne nag xanaa gannaaw jullik ah, xanaaw gannaaw jullik suba ci bis bu te mu njëkk julli ga sib nañu nag ku ko yeexee gannaaw jullit korite ga ci dulul ngànt ku mu war nag li fekk génn li fekk difu ko mu ngi ci baatam te doo ko wàcc mukk te kooram it deesu ko nangu li fekk difu ko ana ku ñu ko war a jox nag xanaa ku ñu war a jox azaka rek ñoo yem ci lépp sañees na koo dajale jox ko kenn sañees na koo tasaare ci mbooloo mi ko yoyoo woor weeru koor farata la ci mukallaf mu ne ku ko weddi ab yefar la ku ko bàyyi te tey ko te taliwu ko ab saay saay la bu bon a bon te bu ko tuul ba dee sawar la jëm mi ngi war nag ñi ko ñi ko gis ñi hmm, ñu gis weer ñaar fukki fan ak juróom ñeent woor weeru koor farata la ci mukallaf mu ne ku ko weddi ab yefar la ku ko bàyyi te tay ko lu ko ab sal sal bona bon te bu ko tul ba dee sawar la jëm mi war nak ni ñuy gis weer wi ci ñaar fukki fan ak juroom ñent ñu gis weer ci ñaar fukki fan ak juroom ñent ci aw baraxlu te gis gu wér wala mat mat fanweeri fan gis gi nak kenn ku ko gis bu wér te wéete ko buñu woré ak buñu wor mom warna wor bu woru ngir bëgg and ak nit ñi nak kon fay ko war na ko kafaara itam war ko bu ko gisé ci ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru ko weeru koor itam bu xeyé bu mu yéné koor waaye du sañ feñal dogga bu ko défé yoon dana ko yar ndare du dafa am gant lu ko tax ak dog kon sañ ko mbolo mi nak bala ñu wor wala ñu wari war nañu gis ñaar juk xam seenu manu ñu ne gis nañ ko wala mbolo mo xamne mënu ñu maase ci aw fen ñu ne gis nañ ko kon bu dee koor war nañu wor bu dee koori war nañu wari bu dee tabaski war nañu tabaski waye borom xam-xamu biddiw nak nekk borom ñom len diglu seeni wax ci weer bu ko am réew gisul te meneen réew gis ko moo xam ne sore nañu kon waa réew ma ko gis duñu ñu a woor te gis ga ko réew ma ca des gis réew mu ne dafa war a yem gisug boppam bu ñu soree mas naa am weer woo xam ne dañu ko gisul ca xijaas dañu wax ne gis nañu ko ca yaman ñu wax ko sayidna omar radiallahu taala anhu mu wax ne bokkuñu gox go bokkuñu benn gox mhm. bu fekkee nag dañu ko gisul ci séenu bu njëkk ca baraxlu ba ca bëccëg ñu xam ne feeñoon na bu wér kon war nañoo jàpp la des ca bis ba te war nañu koo fayit bu dee kor itam war nañoo dog te bu tisbaar jotul mën nañu julli korite bu jotee nag faat na te di su ko fay koor nag moo di yéene wax ci sam xel ne fas na maa yéene woor faratay weer wi ngir yàlla ak bàyyi lekk ak naan ak booloo njëkk fajar ba jant sox yooyu nag ku ci def lenn te tey ko war na ko àggale war na koo fayit bu ko tayee nag dana àggale booba bis te war na koo fay te kafaara it war na ko kafaara nag ñetti xeet la benn mu jox juróom benn fukki miskin ku ci ne genn wàllu àndaari dugub wala mu wor ñaari weer yu toftalo yoo xam ne bu ci jànnee benn bis da koy wat wala mu gone jam bu ko lew bu bokku la bu bokku la kenn te mu di ab julit te am tamul ayib benn bus bu ne lol mo ci war mi ngi war nak ci nit ki andakum xelam te am ak wér tey ku ñu togu jëf ta nek kep dox bu ñuy julli bu jigen mu doli ca baña deret baña baña baña yor dereti yi wala dereti yi wasin ku wopp nag bu ragale ci koor doli ko wop ja wala yeexa kon sañ na dog bu ci ragale de nak kon bu ca ragale de nak dog ga day war bu ko defee bu woré bu woré mu fay ko bu ko yeexé bu yeexé fay ba koor ga delsi te xamne rek ku ko kon nak kon bu koor ga wéyee dana fay te bés bu dana joxe genn wàllu Kui kuy nampal bu ragalee warna doom ja war naa dog waaye dana ko fay te dana joxe genn wàllu àndaare bés bu ne ku bu itam bu ragalee lor lori am ba war naa dog waaye da koy fay rek ku magat baatanatul koor sañ na koo bàyyi joxe genn wàllu àndaar bis bu ne yene koor nag sanes na koo def benn yoon te guddi bu njëkk ga sanes naa beral bis bu ne yene boppam am waccu akum ngàll lu ci génn te bariwul tayu ko mën na koo te dara du ko ci jàll te dara du ci jàll kon du yàq koor bu ñëwee ba ci bëli ga te delluwaat nag dana yàq koor bu ko tayul fay ko rek koy war bu ko tayé nak fay dana ko war kafara itam dana ko war am de ko akum ko momit hmm lu jeg si boliga bu bu ko wone dana yak koor ay lor ay lor nak ak ya rax bu baree yàbbi ko mo gën way wan ko itam du yak koor lu mu bari bari sib ni nak gor gu woor dina fi ay jigen jigen itam naka noonu ak di ak waxe larax ak i caaxaan ak galaxndiku wala saraxndiku bu sori ak seex lépp lu am cafka donte lu demee ne daay daakaane yi wérat la sax ak mos cin wala ndoxum ndogu ak baril nelaw bëccëg ak laal koloñ wala mu di la xeeñ ak di suuru ak di tuufu ak di tusngalu ak di socc ci bant bu tooy mhm. xadd nag sunna la ak yéexe ko ak gaaw a dog ba jant sowee ak wat saw làmmañ ak say cër ak dog ci lu lew ak ci tàntama teg ca ndox ak dundal weeru wépp ci ay jaamu yàlla ak bari sàkk sarax koor nag am na bis yu ñu sopp woor lu bokkul ak weeru koor sopp nañu koor weeru tam xarit yépp rawatina bisub bi bu njëkk ba ak bu ñetteel ba ak juroom ñeenteel ba ak fukkel ba ku wor fukkel ba ku wol fukkelu tam xarit des na ko jéggal bakaram yi at mi mi mu weesu ak ñetti fan ci wër woné ne ak wëru nday koor yépp na ñaar fukkel ba ak juroom ñaar ak baraxlu yépp na fukkel ba ak juroom ak juroom benn ak juroom benn fan gannaaw bu ñu woré gannaaw bu ñu woré ku ko def melni ku dëkke koor waaye la ci gën moo di boo waree nga nik ba dibeer wala àllarba di ca tegew nga dooru umaat ak ñaar fukkeelu juróom-ñaar ci diggu tabaski mm-hmm. ak juróom-ñeenti fan ñu njëkk ci weeru tabaski na juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba ku wóor juróom-ñeenteel ba des na ko jéggal bàkkaaram at mi mu weesu ak at mi mu jublu ak bis bi mujj ci at mi bisub kore nak ak bisub tabaski ak ñaar fan yi ci sas ci tabaski aram nañu wor sip nañu nak ku dekké koor ak ber ben bis rek di wor melni aljuma ni ak ku aj di woor juróom-ñeenti tabaski ak wor bisub sik ngir limto ko ramadan ku ko def bu dëjeeg muy ben mi fan wu koor ngi tam doy du warna war na ko fay mhm. aj màkka aj màkka benn yoon farata la ci mukallaf moko man ci yaramam ak ci yóbbalam manu yaram min modi mu baña ami wop ju ko dem wala mu ragal te dem nga doli ko gop ja wala sosug wop wala ak yéex yóbbal bi itam moo de mu am lu ko lew loo xam ne dara ci riba nekku ca xàq kenn nekku ca teelwaaw ko ñaanu ko te mu doy ko sëkk ba da tumburanke ci yoon yi du jalwaan du lëjal kenn waa këram itam mu bàyyee leen lu leen doy sëkk ba duñu tumburanke duñu lajal kenn mu fay borom yépp bu dul bo ab diggam teewul waaye bu dee teew balaa lesi balaa sax war na koo fay balaa dem wala mu mbatale ko bu ci yooyu yëpp amee nag kum war bu ci yooyu yëpp amee nag war na ko mhm. ni ko julli wa ware ku ko weddi ab yëfar la ku ko bàyyi te tey ko te tëluwu ko ci genn anam ab saay saay la bon te bu ko tuul ba dee sawar la jëm ku bëgg aj nag bu demee ba fa muy armale dana fa fekk ku ko jiite ci yi mu war a def yépp ak yi mu war a bàyyi yépp ba ba muy noppi kon jarul ñu di ci guddal suñu wax fii ginnaaw bi ñu xamee war gi ak ni muy waree umra itam sunna la benn yoon mook aj nag ñoo niroo lépp waaye bu doxee safa ak marwa umra jeex bañ nañu lool nak ku aji ba dikk mu diko dara mu ko dara yo wala mu ko dolli wala mu ko tuddo diko ci aw turam wala mu defene gëne kenn ku ko deful nako def ngir yalla rek ni muy tuddee yàlla ak a julli ak a koor ak nat azaka ngir yàlla moo xam ne ak yooyu yëpp ñoo ci ku war kon nag lu waay def na ko def ngir yàlla rek ngir lu dul yàlla ak neen la ak Touba Mbella TV ngir ngeen mën a jot sunu ay video en temps réel na ngay bës fii tous cloche notification bi nekk lépp daal di yomb